asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñoo ngi nuyoo bu baax ci tur sama mbokk yi xam ma fi nekkal te nu bokk liggéey bi bokk ndigal itam ñu ngi nuyu ñëpp ñu fi bokk yi fi teew sëriñ Cheikh Say mi ngi nii toog sëriñ Mouhamadou Mahfouf mi ngi nii toog sëriñ Abdou Samad mi ngi nii toog sëriñ Bachirou mu Cheikh Abdou Khoudous mi ngi nii toog sëriñ sëriñ Habibou mu Cheikh Mouhamadou Fadl mi ngi nii toog docteur Khadim sëñ Mouhamed Awa Awa Balla mi ngi ni toog kon dafa am loo xam ne mooy suñu wartiif te soxlawu na am beneen wartiif bu du liggéey sëriñ bi ci wàll yépp nag waaye wàll gi jiitu nag mooy njaboot gi njaboot gi bi ñu ko waxee ñi tudd di ko tudd ak mboolem taalibe yi ak mboolem jullit yi sax loolu muy sunu wartiif loolu nag nekk gin ci nekk rek la ñuy gën a fàttali te itam lu ci mën a doon itam ci ndigal lañ ci wéyee kon am na amoon na am yitte yi moo nekk ci noonu te du jóg ci noonu mukk mu nekk nekk na nekkoon nañ ci loolu ba ndigal fekk na ci dox ci ay yéego wax ci liñ ci war a wax dox ci liñ ci war a dox ba alhamdulilah rabbil alamin sant nañu bu baax a baax a baax a baax. ndax bu dee ñun suñu kilifa la ñuy déglu jëlee nañ ndigal suñu kilifa te diggoo nañ ca maanaam coow yi nga xam ne dañ ko doon nañ ko doon nañ ko dégg itam loolu amul solo moo àddina ànd mosu fiy jóg te du fi jóg mukk nag dafa li ci li am solo mooy nun na na nekk ci la war a nekk rek muy liggéey sëriñ bi te defar jiitu ca loolu rek ci la nekk alhamdulilahi rabbil alamin nag coow li fi mu jóge woon lépp lenn rek la Cheikh Mahamad Lamine moo fi nekk nekkal mu di sëriñ Tuubaa ku ne xam ne itam kenn laajtewul Cheikh Cheikh Saalix taxawaayam ci liggéeyu sëriñ bi kenn nattablewu ko kenn sikki sa kaw ko bu bàyyi fi itam nag jeexit ju rëy rëy rëy ci liggéeyu sëriñ Tuubaa loolu it kon ki kooku ki ko fi nekkal mooy Cheikh mu sëriñ Saalix mu amee masuuliya bu rëy boo xam ne mënu ko ñàkk a yëg mu ngi masuuliya bu diis loolu nag lépp itam day daal dellu ci saan rek lépp lépp dara nii rek la ma sa mel naka jëkk adduna moom nii la baaxoo ñi ko seq it ñoo koy seq faw alhamdulilahi rabbil alamin ñëpp lañ ci bëgg nag ñi ko seq ñëpp nag lu baax rek lañ ci bëgg lu rafet rek lañ ci bëgg lu defaru rek lañ ci bëgg te ci la ñuy nekk te duñ ci jub ba faw loolu kaddu yooyu rek laa bëggoon bokk yi ñëpp bokki julli yi bokki taalib yi njaboot gi ñëpp dégg ko noonu waaw turu turu sëriñ meew du moomu ngeen dégg turu sëriñ meew du moomu ngeen dégg ndigal li mu am ak cër bi mu ci am dama ko jëlalee woon waaw te tudd ma woon aw turam waaye sëñ Maodo mi ngi nii toog te lépp li nga xam mooy ndigal sëriñ sëriñ Cheikh Mamadou Lamine li lépp ci moom la koy jeexal kon alhamdulilah rabbil alamin na ko ñëpp ñaanal yaakaar jooju Cheikh Mamadou Lamine am ci moom yàlla dolli ko wér ba mu àggale ndigalam loolu nam nam nam ko nam ko nam nam ko bëggee ndax xam naa ne nam gën a rek la koy bëggee jërë ngeen jëf li ci des nag maa ngi jox sëriñ Bachirou Cheikh Abdoul Koudous jox naa ko ndigal mu àggale junj boobu nga xam ne tàmbali naa ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله صدق الله مولانا العظيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالشيخ الخديم وسيلة asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu sëriñ bi ñu ngi lay doolee sant di la doolee ngërëm di la sàkku itam nga jéggal nu ci coono yu bari yi nga xam ne ginnaaw bi nga nangoo sax nangu moo la ko teg waaye nag jëflante ak njaboot gi nga xam ne da ngaa wàcce sa bopp nangu ànd ak ñoom ci liggéey coono boobee noo la ko teg noo ngi jéggulu ci coono yooyu yële ndax xam nañ ne yow li nga warlu sa digganteeg sëriñ bi yëgoo ca dara waaye sa pasteef ak sa taxawaay dafa nekk royukaay boo xam ne mooy li nga xam ne moo nu gën a ñor ci sa jëmm ji ñu ñaan yàlla nga gën a yàgg gën a wér te gën a mën a liggéeyal sëriñ bi ñu ànd ko ak yow ànd ak bokk yi yëpp li nga wax ñëpp dégg nañu ko mbir moo mule li alquran wax rek moo di waxtu woo xamee ne gaa yi nga xam ne dañoo nekk ñu sàggan dañuy fexe bu sottee danañ xam ne yàlla moo leen dàq fexe te bu pexam yàlla sottee ñu xam ne moo gën seen i pexe loolu mooy li nga xam ne mooy li ci am Serigne Touba yàlla jagal na mbiram ba noppi te du jaga di mukk rëq-rëq yooyu nag nga xam ne mooy liñ doon dégg ci fan yi ni ko Serigne bi waxee mu aju ci wàllu suuf yooyu nga xam ne moom lañ doon dégg di ay parcelles loolu lële Serigne Mouhamadul Amine Baara bi nga xamee ne Serigne Mountakha ak bokk yi nga xam ne ñoom la àndal dem nañ ci moom dem ci Serigne Cheikh waxtaan ak moom loolu lépp fi mu mujj moo di sëriñ bi dafa wax ne Touba benn titre foncier la boo xam ne sëriñ Touba moo ko moom ku nekk ci kanam njabootu sëriñ Touba yaa koy yore Touba benn village la titre foncier boobu benn village la du du xaajoo mukk titre foncier boobu ak village boobu benn chef du village la am muy sëriñ Maodo Jaxate ci jamono yi ñu toll mu bëgg nag képp koo xam ne ki yaa ngi ci biir titre foncier boobu nga nekk ci biir village boobu nekk ci wetu Serigne Mamadou Diakhaté mii di chef du village bi muy quartier boo xam ne tey fii nu nekk di Daarul Minan Serigne Mountakha jiite ko ak chef de quartier wala chef du village bi ñu ko mën a tuddee ci waxin mu nekk ci wetu Serigne Mountakha ba mbooleem dëkk bi daj quartier bu ci nekk ba ci foofale ca Touba Njaareem nga xam ne Serigne Cheikh moom Serigne Salih wala feneen foo xam ne fii ci ci quartier guy mbind ak yeneen nañu xam ne sëriñ bi la mu bëgg moo di sëriñ boobee ak chef de quartier boobee ñu ànd ak sëriñ Maodo ca la nga xam ne moom lay doxal la nga xam ne mooy yéwénal la nga xam ne moo dëppoo li borom barab bi bëgg ci buntu boobu nag ci la sëriñ bi sukkandiku jaar ba jàmm ji ngeen dégg am ndax loolee na nga xam ne na la ko waxe wax ko sëriñ Cheikh Saliou wax ko bokk yëpp ba ñu dégg ko kenn ku nekk xam na ne sëriñ Maodo Diakhaté la ko tàmbalee ci sëriñ Abdou Abdoul Ahad ba léegi lu rafet rek lay liggéey ci ci gox bi moom lay liggéey ci titre foncier bi moom lay liggéey ci village bi loolu nag mboolem ñi nga xam ne ñoo amoon ay ñaggi-ñaggi xol ca wàllu woowee ca ca pakk ya nga xam ne moom lañ doon dégg gis nañu suñu àndee ak sëriñ Maodo Diakhaté ci ni ko sëriñ Baara waxee sëriñ Baara dafa wax ne lépp lu Maodo dikk ne ko lii noona la rek nangu na ne noona la sëriñ Cheikh itam muy sëriñ moom moom sëriñ Cheikh Saliou moom itam nangu na ne loola noona la buntu woo bu ngeen dégg jàmm ji foofu la bàyyi ko kon sëriñ Maodo Diakhaté mii mooy ki nga xam ne sëriñ bi wax na ne yéen journaliste yëpp kenn comme ci mooyoonu pàkk wala mooy téeméeri pàkk sax bu dikkee wéyal na loolee buntu boobu moo ubbi jàmm joojule sëriñ Cheikh Saliou nangu na loolee wa neen alhamdulilah bañ ko nettalee sëriñ Mahamadou Amine Baara neen alhamdulilah ñaari alhamdulilah jooju nag moom la ñu bëgg murid yëpp réew mépp jullit yëpp kenn ku ci nekk ne alhamdulilah ndax lu tax loolu moo di sëriñ Touba jullit yëpp la fi nekkaloon am na benn lettre bu mu yónnee borom daarul moxti dafa wax ne ni may jégguloo képp koo xam ni may jégguloo yàlla képp koo xam ne kii def naa ànd ak man tey ku gëm ni laa koy jégguloo képp koo xam ne kii ku gëm yàlla la ak foo mën a nekk kon ñëpp laa yemale man de du ma du ma du ma tooñ du du du ma ñaan yàlla ku ma tooñ damay jéggulul ku ma tooñ loolu la wax ca lettre boobee mu fonk lettre ba ba def ca ne ko lettre bi sax ku ko gis te xam ne jëlewoo ko feneen na la leer na yàlla dana la jéggal loolu nag da ngay xam ne kon Serigne Touba ñëpp la fi nekkaloon moo tax ma ne alhamdulilah jooju na ko ñëpp wax te bu ko ñëpp waxee itam ñu dund ko ndax li ñu war a dund ginnaaw ginnaaw ginnaaw Serigne Saliou dafa nekk loo xam ne day day misaal ne ngelaw lu bëree bëri bu rombee garab goo xam ne garab gu mag la ti saq bu ko yëngalee dana fa toogaat ay fan yoo dana fa toogaat ay minutes yoo xam ne da nga gis garab ya di jaayu jaayu te loolu rek mooy li fi nekk garab gu mag googu ngelaw li yëngal yëngatu googu mu doon yëngatu car ya moo dalagul rek loolu rek waaye du lu am solo waaye nag li fi nekk moom moo di saytaane naka jëkk muy jéemal Serigne Touba waaye mosu koo mënal dara kon nañu xam ne ndawu ko mënal dara te du ko mënal dara jàmm ji nag nga xam ne Serigne bi liggéey na ko bokk ko ñi mu ko war a bokkal ñëpp de alhamdulilah nañu xam ne nag képp ku ko taalaat koo mën a doon da nga toog ci sa roq yow mu wóor la ne yow yaa taalaat day googu waaw waaw tey loolu lépp leeral nañ ko ne kenn ku ne dégg na li Serigne Cheikh Saliou wax léegi ci ay rajo dégg nañ ko Habibou Diop mi nga xam ne bi ñu bërki démb moom lañ déggoon mu wax mu dellu waxaat di léegi ci turu Serigne Cheikh muy wax ju rafet yoo xam ne dégg nañ ne lépp dellu na ci jàmm ci turu Serigne Cheikh Saliou kon dañu wax ne kuy wut jàmm ku nekk na nga sukkandiku ci lii képp koo xam ne kii nag def nga leneen lu dul lii wala ñu déggaat ne su li nga waaye ak foo ko mën a defee loo xam ne lii day nuru ne lañ defoon dara yàqu na ci da nga toog ci sa roq yow da nga ko rëcc ndax yàgg Serigne Touba lay doon te Serigne Touba sunu borom ñoŋol na ko ba noppi te di ñaan yàlla Serigne bi sunu borom mu fayal nu kilifa yu baax yoo yële te di ñaan yàlla itam nawet bi yàlla def ci jàmm ndax Serigne Mouhamadoul Amine mi nga xam ne moo wuutu Serigne Fadel xol bu rafet la yore xol bu xol bu laabiir la yore te itam ku bëgg a jiite njaboot gi la te loolu jëlee na ko ci way juróom sëriñ sëriñ Fadlu te ku mënoon a ñaan ay nawet yu yu yu nangu la kon na ngi ñaan itam moom itam sëñ bi nga sakku ko ci moom mu ñaanal réew bi yëpp ñaanal réew jullit yëpp bu loola jàllee itam suuf si de moom bu fekkee ne gore na log na sëriñ Saliou bi nga xam ne def na ci moom loo xam ne kenn mësu koo dee def yaakaar naa ne ren ji war naa mën a fay bor ba dina war a wax jox nit ñi loo xam ne dina leen daloo njukkal sëriñ Saliou bu goree moom suuf si dina dina indi meññet moo xam ne kenn du ko nattable wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu